jërëjëf mbokki internet yi ñuy bàyyi xel fu waaye mën a ne ci réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàcc waaye di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen comme niñ koy defee bés bu jot ñu ngi euh, gàdda wala sax golfu c'est le grand champion Jackson numéro 2 ñëw tey waxtaan ak moom ci làmb ji nga xam ne jóge na ko digganteem ak soq waxtan tamit ak mom ci digganteem ak say ak ay adversaire am du ñak demoon na ci Modou dembu amna na lu mu ko wax du ñak mom tamit dina ko xob bu baaxee incha mu tontu ko ñu nuyu ko bu baax bàyyi ko mu ko bokk internet dikoy suivre. oui gën ma lay nuyu ma lay fay bu baax baax. Mhm. ma ngi sante yalla bu baax di jull ci yonent bi. Mhm. di sante sama ñaari waajur di ñaan sama yaay fu mu tedd yalla na fu mu jógee. Mhm. di ñaan mère ak père bakkar sey ak imam Hamid ndia yalla na yalla yërëm taxara xarit di ñaan suma serigne serigne mohammed Moustapha Sy mhm. yalla fi yag lool te amin mhm. ak suñu capitaine mam Cheikh ak maam Babacar mhm. di ñaanal njabootu musa din yeb ak musa dar yeb di ñaan ñu si kaso bi tamit yàlla ñu genn ci jaamu di ñaan ñu si hôpital tamit yalla yàlla defal tawféex waaw di béggee suma gaay yëpp di béggee wa parcelo wa jàmm gën ak waa géewaay ak wa bun xam nga di béggee ñëpp daal waaw okay loolu am na solo yaakaar naa bi mooy première fois ñu seq ñu seq émission su ma juumul kon du ñàkk ma laaj la dëgg kan mooy Jackson. ah Jackson benn ki mbër la nii rek ku juddoo waala yoroo fa màggee fa jàngee fa xam nga waaw. Mhm. ñëwaat xam gis làmb nit ñi di ko fooyee rek ñu fooyee ko rek waaw. Mhm. gis Jackson numéro un yàlla na ko yàlla yërëm taxar ko àjjana. ñu mhm. daan ñëw waalo xam nga di bëree foofu noonu. ñu tuddee ko suñu bopp xam waaw ñëw daal di si wër làmb gis nañu mm-hmm. daal benn mm-hmm. yaaram la daal mi ngi nii. ok euh, da nga jógee waalo ñëw ñëw Dakar ngir làmb wala dafa am leneen lu la yitteeloon fii. waaw doon naa jàng métier doon naa jàng métier carrelage waaw doon naa jàng métier di bëre waale quoi. Mm-hmm. métier bi ñaata at nga ci def. métier bi yàggul leen yàgg parce que ay cinq ans yoo laa def rek. ma mm. mm. moo tax nga bàyyi métier boobu noonu. non bàyyi ko ba tey sax boo ma boo ma joxee liggéey damay liggéey. ok mais gëj nga ci. waaw gëj naa si nag. vraiment. Mm. lamb moko moko mo ko moo tax loolu wala lan la. waaw lamb la amatu fooy toll xam nga entraînement moy mooy tar ba doo mën a ñaar yépp quoi. hmm parfois nga comme comme sama gaan mo liggéeyaloon mën man nako liggéeyal mais focus ma ko quoi comme légui nekkatuma si cent mais suma amone amoon sama benn copain buy dor néegam ni mon nako naa ko def hmm ku néegam. Mhm. oui. ok nga dugg ci làmb ji ndax way jur yi bàyyi woon na la ci nga nga dugg ci non mbër yaakar na naa yu kuy bërëm gëmu say wayur dina la bàyyi quoi. Mhm. mais yaay forcé di forcé ba mujj rek ñu xam ne liy liggéey la quoi parce que làmb métier la rek. Mhm, mhm. mais mais sans dépense koo xam parce que ñun bu ñu xëyee liggéey ñun dañuy xëy entraîné ji. waaye. ok euh, ndax jaar nga ci mbapat wala ay tournoi nomé yu mel noonu. waaw jaar naa mbapat jaar naa si tournoi nomé yëpp jaar naa yooyu noonu. bëri ci wala sax bëri nga ci ay champion yoo xam ne ràññee na leen jamono ji ci làmb ji. non yaakaaruma ko nag quoi ay champion bëriwuma ay champion ok parce que laa gën a mboppatee mais fii dafa mboppat bëriwul. Mhm. Hmm. Mhm. nga dugg ci dugg si arène bi euh, bi ngay dugg si arène bi ndax matoon nga dëgg bi ngay bi ngay dugg ci arène bi. waaw ba ñuy dugg si arène bi am na ñu doon bàyyi ba déwoon affaire yooyu doon sax mais xam nga ñu moom chaque jour suñu jàmbaar la ñu wane rek. Mhm. dugg si xam nga yàlla suturaal ñu ñu tegal victoire. xam mooy loolu noonu. Hmm. ban année nga duggoon ci laamu ji. ay 2015 2016 su ma jumulee. 2015. Hmm. waaw ok sa premier combat kan nga ko bëreel. Boy Thiaroye Boy Thiaroye. Mhm. Hmm. Boy Thiaroye nga bëreeg champion yu bari ah. ku ci mel ni sang. Euh, ku ci mel ni tey euh, góor gi étudiant juumul. Hmm. Euh, nga bëreeg ki nga xam ne tey moom mooy booy bi dëkk Rock Énergie. sa bi nekk Rock Énergie. lu nu ko laay. lu waaw waaw man waaw nga bëreeg ay. naq jëri ñu bëreeg ay sox bëreeg champion Pape Ndoye. nga bëreeg ñooñu ñu baree bari ñaata combat nga def ci bi. def na 16 combat hmm wa ah, 14 victoires 2 défaites. ok lan mo la may loolu ci année bi nga dugg ci lamb ak année bi toll ni waaw ñun moom amoon sens di bëre ci jour yu magé yi quoi. waaw ñu saison bi doon bëre 3 combats par saison. hmm dama bi ñu bëre 2 combats par saison. hmm être lo tax affaire gaaw combat yu bëre ni rek way hmm ok euh dem na boy bi nga bëre rek suma jumul euh abdoul khan Ndiaye mo ko doon wax muy sa manager bi nga doon dugg ci arène bi. dem bay bëreeg Pape Ndoye kan nga avant ngay bëreeg Pape Ndoye kan la woon. avant may bëreeg Pape Ndoye sang laa daan. sang ok. waaw ah. yaakaar bi nga ko bi nga bëreeg moom ba pare. Hmm. Euh, si la sa waajur gaañu su ma juumul. moo ma bëree sang ba pare non non waaw su ma bëree sang waaw. ok avant may <laughs> mën a expliquer ci ci ci ci jaar-jaar boo xam ne def nga ko sa digganteeg sa sa digganteeg sa waajur. waaw affaire yi mooy loolu noonu rek. Mhm. suñu ñu waajur la woon baaxoon si ñun xam nga bëgguñu xam nga mooy loolu noonu ñu dem ba xam di commencé rejeté sur live bi xam nga. Mhm. yàlla jël ko quoi. Mhm. bi ko yàlla jël boobu yaa ngi ci yaa ngi ci ñaata combat. boobu su ma maa ngi si ay si nekkul ay dix ans fu ma jumalee ay dix combats. Mhm. Euh, keroog bi mu bi mu génnee àdduna bi ñu la ko tàggee fan la la fekk Dakar la fekk wala Waalo. non Waalo la ma fekk dama doon gàmmu ji foofu noonu Waalo waaw. loolu ñu mën a expliquer ci génn génnu àddunaam ak ak ak naka nga ko yëgee. waaw sant rek xam nga yàlla moom lu gën lay def lépp lu gën lu ko def te ñun ay jaam nañ dañuy sabul comprendre nga. Mhm. ay tuutaang lañ. xam yóbbu na ko mais bàyyi na fi leneen lu waaw lu loolu lu gën loolu quoi. Mhm. parce que yàlla lu mu la xañ rek dina la remplacer leneen. Mhm. oui. Mm. Euh, jour boobu naka nga ko yëgee naka naka naka nga yëgee. loolu waaw moom ñëpp xam na ko ñëpp xam nañ ko. yaay moom mu neexul remplacer. waaw mais sant yàlla daal oui. ñoo si jàmm. ñoo ngi dund waaw. Mhm. Mm. ni paa bi mi ngi dund yaakaar naa. waaw mi ngi dund waaw. ok euh, di bëre te gisoo gisoo jur bu jigéen bu la ñaanal loolu lu mu def lu muy def ci yaw waaw loolu dara loolu moom xam yàlla mooy loolu mooy loolu nekkul mais ñeneen nañ fi quoi. waaw. Mhm. Mhm. nag suñu wécc mais li la yàlla na ma ko si moom. parce que rek bi nga bëree pare ci plateau bi yaa ngi doon lu am solo. Mm. nga ni ñi jàppale fekkewuñu sa njariñ xëy na. Euh, loolu ñan la ñan ñoo la jàppale. te fekkewuñ sa njëriñ waaw maa ngi ku benn la père Bakar Seye ama ak Meraaw mhm. la quoi. Mhm. mais sant mhm. fan lañ nekkoon ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi woon fii Dakar. wala waaw ñoo ngi ma si lu bëri ñu nekk nekk seen gaale. ñu accueillir ma kenn sama magu yaay la xam nek ak man bëgguma ma comme comme maanaam nu ma bëggee bëgg ma ko seen doom bi quoi yor ma yor bu rafet di sonn si man digg ma gudd li ma bëccëgal xam nga ok mm. loolu am na solo eh, nga jógee combat bu mag mu dig sa diggante ak soq mm. bëreek ay ñaq jaruñu bëreek champion yu bari ci biir làmb mm. am 16 combat eh, sa diggante ak soq yaakaar naa ñëwoon nga ci du ma ci ñëwaat lu bari mais combat boobu noonu jeexantal gi dafa bett dafa bett ñu bari am na ñu ni am na ñu ni jëlu wërsëg la xëy na am na ñu yàlla def ci ànd parce que lu yéeme mi noonu lu kenn mësul def ci làmb nga def ko. Mhm. salaamaaleykum waaw sant rek xam nga affaire moom mooy lu ma wax rek. Mhm. yàlla moom mooy moo àndal ñëpp ñun mënuñu dara ñun ay mhm. yàlla ñuy dimbali. ñu dimbali man yàgg dimbali tamit. moo ñu dimbaliwaat keroog ñu daan. soq mënoon ma ko ëpp ma ko yàlla ma rek ma daan doon. ok nga jógee fa ndax euh, promoteur ñu ngi lay woo di la proposer adversaire. waaw ñoo ngi proposer ay adversaire ñoo ñuy doxal ay combat mais yàlla na taxawagul quoi. ok kan la kan la lay proposer comme adversaire. Ah, ñu ngi proposer ay mbër quoi. ñu ngi proposé ay mbër ñu ngi proposé Moussa Ndoye ñu ngi proposé ñu ngi ama neex ama mais yàlla na dara sotteeku si quoi. ok mais ndax bëgg nga ñooñu ndax Jackson bëgg na ñooñu. ak ah? ndax ñoo ñooñu tamit ñooy ay moromam. Apa ndak mang bisa nyom sande nyom nyom perang. mang mang bisa sama sama sama sama isa brak. Kemen Abdul Hanjay. Mhm. Waaw mom lu wax loolu la wax mau wax wax mako. Mom xam na fu ma jëm. Mhm. Waaw. Mhm. Man amoo problème combat pour ma Ban catégorie la Jackson bokk jelang, lamb ji? Waaw yow mi la loolu xam nga xam nga ban catégorie la bokk. Mhm. Ban catégorie nga bokk yow si sa ban catégorie nga bu gaa yi boo ko rek bu gaa yi boo gaa yi kii rek man moom. ndax mu jër jëli naa ko dem. tout tàng laa mu jër jëli naa ko dem moom xëy na bëgg na seen làmb yéen ñaar su ma jumul doon nañ ko dox lu yàgg xaw ma su loolu la waxoon yaa yaakaar naa. waaw Modou Dieng gën doon nañ ko dox ay temps wax dëgg yàlla mais si moom la yàqoo quoi. ci moom la yàqoo moom la yàqoo waaw. ok mais moom wax dëgg yàlla mu doon champion la ndaanaan la jàmbaar la. mais doon nañ dox suñ ko bam na moom. mais yàqul woon si man si moom la yàqoo woon. Mhm. Mhm, ok. mais léegi bu ñu koy dox yaakaar naan du yàqee ci moom xëy na ci ci yow lay yàqoo. ah mooy ma wax man maa fekk sama staff ku ma la ma boole mu bëri moom champion la ndaanaan la jàmbaar la. Mhm. def na loolu si lu ne si làmb o dëgg yàlla ku ko xam-xam ne daan mhm. la. te ku ku ku dul déborder dara vraiment. way mhm. ndax làmb boole na la nii ñaar jamono ji. waaw làmb boole lañ kay làmb boole lañ waaw mbër la la ñuy mbër. ok mbay guy gi nag ñi ngi ñi ngi dégg sa kombaak ak moom ah. gan <laughs> mbay guy gi. waaw moom champion la ndaanaan la jàmbaar la làmb la yooyu làmb la ku ñu làmb bool daal Abdou Lahad mi ngi fi ñu bëre quoi. Mhm. waaw mbëgg champion la def na fi ay preuve am. ok ndax mën nañoo mën Jackson dem ba li Modou Lo tee muy couronne roi des ndax ñu ngi koy séntu. teew jar wax man moom laa bëgg moom laa bëgg te lu ma gëm la quoi waaye. ok. Hmm. Mhm. kan mooy sa idole ci làmb. man moo sama moo tax nga def ko idole. waaw ah, parce que ma gis. waax bu ne si moom dama gis tamit bëre bu bëre dama gis fulla bi tu vois dama incarné. ok. waaye du wax lu ñaaw du def lu ñaaw te il est intelligent xam nga. Mhm. bu doon bëre si daan bëre fulla da fayda même boo ko daan def fulla fayda lay demee. Mhm. waaw. ok. yar bi nekk ci yow doo ko utiliser ci biir géew bi. Hmm. ndax gën nañ ci biir géew boo génnee ci biti moom xëy na dafay xaw a dafay xaw a nooy lan mooy lan mooy waral loolu des fois. waaw ah, même biir géew yaru si woon. ah non non do laaj do say adversaire kay do say adversaire do len won yar. làmb mom lu laaj la rek. waaw ñun maanaam ci biir géej dañu fa wone talibé mais dañuy wone ñu war nañu def rek. hmm parce que boo andee nit ñu. gëm na wóolu la. hmm maanaam duñ duñ la wax sa ay jason dina daan gene nak nak day gaaw la wax day gaaw. day gaaw kon man am na ma war quoi du caaxaan mo war du fo mo war xama hmm waaw deug deug man dama wara a ba dee te taw war dañoo wane fula chaque jour. hmm way hmm lo kessela lu waral nga wara a ba dee fi nga jaar la wala. parce que man tey tey man moo defee émission nii boo xoolee samay commentaire doo gis commentaire bu négatif. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. kon Sénégal lañ ma sas benn sas boo xamante ne xam ma loolu du yaafus mooy tax ma dem si loolu noonu. xam du yaafus moo tax du naa ko tamit mooy tax ma àgg foofu noonu. waaw il a góorgóorlu gën a suuraat mm. am na solo keroog ñu génn le premier janvier diggante Modou Lo ak Boy Niang numéro 2. Euh, làmb jooju ndax nga ko gisee ak jeexantal gi. waaw làmb yu neex na ñoom ñaar ñëpp def nañu war a def. Mhm. mais yàlla mënuloo la àndal. boo ñaa bëri na. juum na mhm. daanu na. waaye. ban jumte la boo war a def ci combat boobu. waaw jumte mooy moom utul dara si tànk yi mënuloo. waroon maanaam waroon warul dem ci tànk Modou Lo. non warul fa dara loolu la juumee kese. mais Boy Niang jàmbaar champion la te gis nu mu bëree. Mhm. xeer xeexu jaar yoon. bëri na daanu. mu juum daanu. ok kan mooy adversaire bu Boy numéro 2 euh, potentiel jamono ji. hein adversaire potentiel. boña waaw. ah boña ak agna ci cappaandaw ku bëreel combat royal laal yaa ngi si kaw ma nga beure ku nek moom mooy xol la mooy soit ku muy beure rek. ok mën na bëre ku nek waaw. mais diggante meur rek lu jaadu la. waaye ah, yëpp làmb la. re mu sen bir lamb la vraiment. Modou ak Tapha gis na ni lu jaadu la. jaadu na lamb la. lamb la. ok. Hmm. loolu am na solo bëgg naa ceew fi ma la fekk ni yaakaar naa ni foofu la ñuy jeexalee. Hmm. Mhm. waaw yaa ma fekk sama copain yi fii ñu jaaxaal seex bi aali mhm. ama ak beneen junior ñoom kasoor ñoom alu ñoom laay borsa mhm. ñoom zoo bu ko jigéen ama waa Cambérène yëpp fekk sama gars ñoom dal xama bégee tamit ñoom am ñoom baaba ñoom laa jóob xama waa buuni waa Papa bu Jackson Debu Jackson waa Rue maa ngi bëggee ñëpp di rungaas gi xama du bëggee tamit rungage bu baax a baax ku mel ne ñoom Diouf xam nga. bii waala waala yi di woo suñu gàmm gi di invité ñëpp le vingt le vingt janvier waaw. maa ngi bëgg ñëpp. ok bëgg naa ci yow lan ngay lan ngay tàggatoo. di bëgg suma waa gaal bu baax nag xam nga waaw sa waa gaal ñu ma jàppale nañ maa ngi bëgg ku mel ne Ndeye Seye xam nga Fassé. Mhm. Alsaan Gumba xam nga Moussa Thiago xam nga madame Seye maa ngi koy bëggee bu baax baax waaw maam mm-hmm. Seye yëpp yeewoo gaal bi daal maa ngi lay bëggee. ok oui. jaajëf kontaan nañ ci yow. jaa waay kontaan naa jaajëf jaajëf waay.